itam ànd ak euh, mbégte ci li ñu yàlla may ñu amoon ay sumb ñu sumboon yàlla may ñu ñu mottali ko ak jàmm loolu yëpp ci sant yàlla la bokk loolu bokk na ci résidence su Cambérène bi nga xam ni defoon nañ ci ay liggéey jagleel ko xalif général de Layène yàlla def liggéey boobu mat na ba war nañ mën a jébbale caabi ji caabi yi ak lépp loo xam ni mooy màndargaal euh, dëkkuwaay boobu la ñëwaat naa itam daaw jéeg daf ma fi joxoon ab soxla ci dëkk bu ñu bu Malika te ñëpp xam ne itam euh, laayeen am nañu fa lool taxawaay ndax njaboot gi loolu it jébbal naa ko léegi kayit bi màndargaal euh, dagg bañ fa dagg muy lu ëpp quarante cinq hectares jox ko communauté laayeen pour ñu mën di ko euh, en tout cas di si jëfandikoo ci na mu waree euh, loolu yëpp day wane rek sama yitte ak sama yéene ci njabootu diine yépp ci Sénégal mooy di leen fekk si si loo xam ne njëriñu askan wi lay doon di leen fekk si si loo xam ne dana leen permettre seen diine ñu gën di ko doxal ci anam yu gën a woyof loolu mooy sama gis-gis ci ni état bi war a taxawee ci kanamu diine ji